décret affaire kaso yi affaire kaso yi ñun ñëpp on est responsable ñun ñëpp am nañ si suñu part de responsabilité kaso yi waa jur yi am nañ si wàll administration fekkee yàlla la ñuy waxal dëgg rek la ñuy wax administration mu ngi def liggéeyam parce que administration du dóor administration du yóbbu cellule yóbbu cellule yi ñu doon yóbbu deñ na dóor amatu fa liif amatu fa fekk ku nit ki na wax sa diggante ak sa travail ba mel garde yi amuñ jotu dóor kenn garde yi formation ñun suñu formation boobu ñun suñu formation sax yenn saa doon nañ dóor mais après y de changement des que dañoo dem ba ñun ak dëtuñ day nit ak doomu ndeyam parce que yéenay xëyandoo huit heures ngeen nekk huit ba ñaari fan nga nekk ak ñoom di ànd ak ñoom di ñu feebar nga yóbbu leen hôpital faj leen def lu ne dañuy mën dem ba mel ni say rakk lañu wala say frère lañu wala say mag lañu. cofeel day mujj dem am ba seen diggante doo si bugg def kenn dara lu metti donc buñ ne gardien de prison yi dañoo soxor gardien de prison soxor liggéeyam lay def au contraire moom il est exposé parce que gardien de prison boo xoolee comparé gardien de prison Sénégal gardien de prison yeneen pays gardien de yeneen pays boo xasee dugg si kaso bi ngay sol sa tenue booy génn di ñibbi da ngay bàyyi tenue bi sa kër ga parce que tu es protégé parce que ñi ñu mosoon jàpp mënuñ bëgg a fay si gaañ la bu ñu la gisee nga sol ngay dem di ñibbi mën nañ la attaqué gaañ la te loolu yëpp amul au Sénégal Sénégal da ngay wàcc sa tenue war a ñibbi Kër Massar wala nga war a ñibbi Tëngéej da ngay dugg si kaar yi comme ñëpp ak sa tenue dem ñibbi sa kër te xool ñun dañ daan monter si 5 heures du matin ngay jóge sa kër dem 100 mètres nga yendu fa fanaan fa jóge fa 9 heures soog a ñibbaat seen kër benn temps boobu ñun bari woonu ñu parce que je me souviens ñun en 80 79 80 ñun. douze gardiens la ñu woon pour mille cinq cent détenus douze gardiens pour mille cinq cent détenus ci cent mètres ci cent mètres bon boo gindee dëndee ñaari mirador yi si douze personnes yi huit mooy des nga génn chef de poste bi mu des sept nga génn son adju son adjoint mu des six nga génn léegi portier central mu des cinq cinq yooyu ñooy def navette yi nga génn secteurs yi trois secteurs wala deux secteurs la ñuy jël te 100 mètres quatre secteurs la war a am savant premier secteur deuxième secteur troisième secteur ak quatrième secteur avec le secteur des des des des des des détenus politiques mais boobu dañ ko daan tëj à part bunt yi bokkuñu léegi yéen yéenay xëy yóbbu détenu yi tribunal ngeen yendu fa ba ngoon yëpp du ngeen añ de ngeen ñib si guddi du ngeen reer xanaa nga am sa xaalis dem jënd sa mburu nga lekk nga fanaanoon ba bët set nga soog a xëy ñibbi sa kër noonu ko yoon wala nga bind bool loolu lañ nekk woon cent mètres liggéey bu metti la liggéey boo xam ne la fayuñ leen seen njëg fayuñ leen li ñu leen war a fay fayuñ leen ko protéger wuñ leen parce que te boo juumee gaañ dëtun yow ñu defeeral devant defeeral devant si tribunal mën nañ la si tëj mën nañ la defeeral devant un conseil d'enquête rétrogradé la boo gaañee dëtun boo defee erreur tout ça mën nañ la si dàq te yow fekk per de famille nga yooyu yëpp il faut ñu seetaat ko. bu dee Thiès bu dee fële nekk 15 la gardien prison. bu dee Thiès gardien bi ma fi ñëwee si je me souviens bien nous étions 10 personnes par brigade parfois sa brigade bee day manqué nga jël si brigade bi mu renforcer bële ba ay 6 heures mu ñibbi kër ci ñaata brigade. on avait que deux brigades 24 24 la woon. tu fais vingt quatre heures tu descends tu ba vingt quatre heures loolu rek la woon léegi nag dem na ba ay trois brigades mais ñun suñu carrière yëpp presque deux brigades la ak foo mën a dem tu fais vingt quatre heures tu descends tu fais de vingt quatre heures looloo fa amoon. ñu ñëwaat kon ci li nga xam ne mooy ñaar ñetti fat yi nga xam ne ci biir Sénégal gis nañu prison maanaam teew yàgg ñi tee attuñu leen ak tamit nekkin bi ñu nekk ci prison yi mu nekk surpeuplement boo xam ne eh, jéggi na dayo médias yi ñoo gën njëkk a yokk affaire bi mooy les ñi ma leen wax ne mooy ñoom ñooy Amnesty International ak nii. ak politiciens yi. parce que li gën a bon mooy nga xam li ngay liy dëgg pare nga teg sa tànk di wax fen dafa araam benn longue détention yi du nii la faute de l' administration pénitentiaire pénitentiaire yi defuñ ko waa tribunal defuñ ko waa gouvernement bi defuñ ko mën naa ne ñi ko def mooy. mooy li ma la wax c'est une faute partagée parce que calculer léegi rëbës dakaar ñaata commissariat fa pikin ñaata commissariat Pikine bu jàppee day indi commissariat central day indi tribunal Géejawaay bu jàppee day indi tribunal euh, Yaraax jàpp indi tribunal lépp lu wër Dakar fu ñu jàpp Dakar tribunal de Dakar la ñu indi bu ñu indi tribunal Dakar ngoon gi mënul mënul kiyandoo yëpp. mu jël yóbbu leen 100 mètres ñu téeleen bu suba ñu delloosiwaat leen ñi ñu war a placer mandat de pour ñu placer ñi ñu war a bàyyi ñu bàyyi leen loolu moo tax 100 mètres di fees. bu dee Thiès la aussi Thiès région de Thiès yëpp benn prison Thiès bi moo muy recevoir ku jógee Kébémer Kébémer fii lay defeere Tivaouane fii lay defeere Xombol fii lay defeere Mbuur fii lay defeere Joal fii lay defeere euh, kii. Euh, Joal kii Pout Pout fii lay indi non Louga bokkul fii euh, Kayar fii lay indi euh, booy demee Kaolack kii dëkk boo génnee Mbour Caajaay fii lay indi yaa ngi dégg bon toutes ces brigades bu ñu indee fii boo calculer li ñuy indi par jour ça peut être vingt ou trente ou quarante boole ko li waa Thiès jàpp ñetti commissariat yi premier arrondissement deuxième arrondissement ak commissariat central ak gendarmerie brigade de recherche li ñuy jàpp bu ñu ko boolee indi ko boo calculé mën na ne quarante personnes wala cinquante ces cinquante là dañ si bàyyi peut-être procureur mën na si bàyyi dix mais dina des au moins quarante quarante yooyu bu ñu leen jëlee defeere leen yóbbu leen prison ba te prison bi saa yu ñu xëyee peut-être ñett wala ñeenti nit la ñuy libéré jour jugement parfois ñu am ay libération de quarante personnes wala trente personnes mais bu ñu libéré kenn mais police day indi gendarmerie day indi te bu ñëwee tribunal lay jaar tribunal indi fee ñooñu nag bu ñu mënee nekk foofu mais chambre yi day xat fa mu xat te aussi am na amélioration parce que chambre dañ leen karoli léegi chambre yëpp am ventilateur am tele donc c' est une amélioration ñu ngi c' est groupe boo gis rek am na ñu baax am na ñu bon kër goo dem am na nit ñu baax am na ñu bon service boo dem am na nit ñu baax am na nit ñu bon am na ñu gëm yàlla am na ñu doylu am na ñu doyluwul mais quatre-vingt-quinze pour cent si li ñuy accuser gardien de prison lu si ëpp ay fen neen la parce que gardien de prison boo jaaree li nga indi li ko indi sa li nga indi sa doom boo ko jaaree fu mu war a jaare du réer du yàqu du réer du yàqu portable dañ koy tere si prison yi ku ñëw nëbbal sa doom portable jox ko ko si bu ñu ko jàppee bu ñu ko placé su mën naa dépôt si bu ko tëddee bul ne dañ laa tooñ waaw te gardien de prison du jël portable di ko jox détenu nag yi parce que loolu mën nañ ko si dàq c'est que nag mën nañu organiser benn cas un cas social ñu ne détenu yii kat gën nañ gis seen i mbokk gën nañu wax ak seen i jabar gën nañ wax seen doom ñu ne ndax sa jabar am na numéro téléphone nga ne ko waaw ban numéro nga ñu indee nga toog si bureau bi ñu oo sa jabar def ko au ngay wax ak moom ngay wax sa jabar di ko sant di ko gërëm mu dee sant di gërëm nga naa ko lii laa soxla mu ne daan la indil bërëb sàngam loolu moom moo si wala nga bëgg ndimbal nga ne si jabar demal si diw nga ne ko na ma dimbale si nangam wala na dimbal si nangam pour nga yore ko samay doom loolu see normal jullit mën na def loolu gardien prison am na prison yu koy def pour mën a alléger c'est parce que day dalal xelu détenu bi parce que détenu bi toog ñetti weer ñeenti weer juróom weer gisul jabaram déggul doom bu jabaram ak moom téléphone doomam wax ak moom téléphone loolu luy delloo xelam la dina mën a tëdd kasoom nu mun na ware looloo tax